ñun waa raw nga xam ne ku ci nekk da ngaa jóge ci secteur bu ne bokkuñu ci li ñuy yëngatu waaye bu sunu askan jaaxlee dañoo dajale suñu doole ku ci nekk bàyyi la nga nekkoon ñu booloo pour taxawu sénégalais yi loolu rek moo tax raw raw taxaw loolu nag li ko waral mooy li ñëpp yëg mooy orange xëy bett sénégalais yëpp ci jamonoy mbas ñëpp nekk ci jafe-jafe mu dem yokk Euh, prix yi mu doon euh, jaay sénégalais yi ci ni ñuy wootee ak ni ñuy connecté woo ak euh, ni nga xam ni moom la ñuy jëflante ci Sénégal parce que lépp lu nit di jëflante ci sunu jamono ji ñu ne ci xarala yi lay jaar te ñoom ñoo yore loolu ndax ñoo ci ëpp doole ñu xëy nag ci biir mbas mi yokk ko yokk bu jéggi day wax léegi nag bi loolu amee ñu ne nag kon ñii taxaw xeex ak ñoom jot na ndaxte bu doon ñun ñii rek la mën nañ ne ku ci ne lu yokk yokk bi metti metti mën ngaa jënd sa crédit boo wootee waaye lii ñuy taxawal sénégalais yi ñoo tax ñu koy def loolu moo tax ñu boole doole ji démarré ko ca ndakaaru def fa conférence de presse bu mel nii wax ni dana mébét xeex ak orange loolee nag ñuy xeex ak orange moom lañ ñëw nag léegi fesal ko fii ci Touba donc lii nga xam moom lañ fi bëgg lim léegi ci nasaraan ma war koo tënk ci wolof fii lañ ko njëkk a waxee ci Touba parce que dañoo bëgg fukki càkku téef yoo xam ne ñun raw dañ koo am yoo xam ne dañ daal laalu ci ndoddu gouvernement ak ci ndodd opérateur yi nga xam ñoo nekk di jaay téléphone ak internet sénégalais yi te orange ëpp ci doole waaye ñoom ñëpp nag lan ko teg ci seen ndodd ñoom muy orange di free di expresso di promobile bu mbakk yu fay nga xam ne sénégalais la ak ñoom ñëpp ku ci nekk lii nga xam ne moom mooy suñuy càkkutéef fukk yi ñu fi wëgg lim ñoom ñëpp lal lal seen ndodd te li tax ñu koy càkku càkkute càkkuteef yooyu am mooy pour mën a euh, aar sénégalais yi nga xam ne ñoom lañ bëgg a ndóolal parce que nit boo yeewoo comme ni ko El Hadj Mansour waxee sànq bala ngaa lekk sax da nga jël sa téléphone wax ak nit wala envoyé message kon nag loolu consommation bu métti la ci sénégalais yi ci jamonoy bas lii moo tax ñu ne ñun nag bu ñu bëggee wax dëgg yàlla ci jamono ji nekk ñu jàppale sénégalais yi mooy benn dañuy wax nguur gi ne ko daa am loo xam ne moom moom càkkuteef yi moom moo ko yam yeneen di nag opérateur yi la ma ma ma démarré nag ci nguur gi nguur gi la ni ba càkkuteef gu njëkk gi ñuy laaj Sénégal mooy sunu réseau bi nga xam ne dañ koo jël dénk ko ay nit ay entreprise yoo xam ca bitim réew lañ nekk nga xam ne mën nañ ñoo déglu suñuy appel mën a déglu suñuy président la république mën a déglu suñuy kilifa diine mën a déglu askan wi ci ñoo xam ne nekkuñ ci réew mi ñu dénk leen ko loolu lañ bëgg mu dakk ba ñu moomal suñu yëfi bopp parce que téléphone dafa sensible mënoo ko jël jox ko koo xam ne bitim réew la nekk mu yore ko te aujourd'hui waawee moo ko yare ay chinois lañ orange jox leen ko ñu lënkaloo di déglu sénégalais yi loolu lañ bëgg mu dakk beneen bi mooy nit jaayantee euh, alalu entreprise bi daf ci am ñaar fukk ak ñett ci téeméer boo lim yoo xam ne kenn xamul ñan ñoo ko moom dañoo bëgg ñu génnee ñu liste bi ndaxte nee nañ ñu ay kilifa ci politique yoo xam ne ñu ngi fii ci réew mi ñoom ñoom ñoo ca ëpp. léegi nag dañoo bëgg liste boobu ñu wax ñu ko parce que su suñ ñu sénégalais am nañ droit xam lu xew ci entreprise Sonatel beneen bi nag mooy Sonatel dafa amoon doole bi muy lëkkaloog Orange ñu ñëw lëkkaloog Orange pour wuti euh, ay ay ay ay ay yeneen réew yoo xam dañ fay dem xëccoo fa pour gagner fa euh, jaay marché téléphone. waa léegi loolu bi ñu ko defee orange amoon doole lool and euh, Sonatel amoon doole lool di entreprise Sénégal ñu dem ba orange rey ko fi ñu toll ni Sonatel presque tekkeetul dara orange yore lépp te pourtant moom moo dalaloon orange Sénégal waa léegi nag ñu ni nañ delloowaat Sonatel ca doole jam amoon ba dem ba noppi jënd sax ci koom-koomu euh, kuréel kuréel googu tudd orange nañ fexe ba la ca ëpp sax ñu jënd ko ba noppi jox ko Sonatel pour que Sénégal moo maat téléphone am looloo càkkutéef la boo xam ne raw am na ko beneen bi nag mooy ñu fexe ba nga xam ne comme jamono ji ñu nekk lépp looy def ci koom-koom ak jënd ak jaay lépp ci xarala yi lay jaar ñu fexe ba nga xam ni daañu ko mën a def ci ay ah, anam yoo xam ne nit ñi daan ca mën a jot ci njëg yu yomb yoo xam ne du leen indil ay jafe-jafe booboo càkkutéef la ci ci raw beneen bi nag mooy li nga xam ne moo gën a intéressé sénégalais actuellement Orange danoo bëgg li muy def ca France mu def ko fii Sénégal comme yeneen tamit opérateurs yi muy xëccool marché bi mooy France képp ku fa jënd bis bis bépp da ngay woote bu dee da ngaa jël Illimix benn fan muy Illimix un jour muy benn fan moom jënd nga ko ak loolu la ko mën a jaayee mooy ñaar téeméer wala téeméer ak euh, euh, nit ak yooyu léegi bu ko defee yow bis bi yëpp mën ngaa woote bis bi yëpp mën ngaa connecté wu bu dee tamit da ngaa jënd euh, ayu bis ay bis bi nga mën a woote ba noppi ay bis bi yëpp nga mën a téléphoné bu dee da ngaa jënd weer weer wi yëpp nga mën a woote weer wi yëpp nga mën a connecté wu loolu la ñuy def France te nanguñu ko def senegal loolu lañ bëgg mu dakk sénégalais bu jëndati bis woote bis connecté wu bis sénégalais bu jëndati ay bis woote ay bis connecté wu ayu bis sénégalais bu jëndati weer woote weer ba noppi connecté wu weer te kenn du la sàkkal ay waxtu yooyu woote loolu bokk na ci ñun li ñuy sàkk ñun waaraw beneen bi nag mooy que ne boo jëndatee ay waxtu yoo war a woote ñu ne la jënd ko ko waaye délai nangam la dele boobu lañ bëgg mu jeex parce que ku jënd yaa moom kenn waratu koo nangu ci yow boo ko xasee jënd yaa moom dañ la ko war a dencal ba nga xam ni yow heure boo ca bëggee woote waat woote donc noonu ñuy jënd ngay jënd sa crédit ñu topp caag ñun la jël nañ ko ndax woote woo ko loolu lañ bëgg mu dakk ndaxte loolu ak càcc la beneen bi nag mooy. boo de boo boo dénkaanetee sa xaalis yaa ko moom ci sa compte Orange Money yaa dénkaane sa xaalis doo ca fay dara boo koy jëlee doo ca fay dara yaa ko moom boo dee nag da nga caa jël di jënd nag léegi di fay say facture wala di fay leneen mooy yaa ngay jëndante ka jaayante boobu fay mën na caa am nag jël sa xaalis daal di koy denc ci sa gafaka Orange dencal la ko te yow defu ko ci dara mun la denc bi mën naa la ko mën naa laa may doo ca fay dara waaye boo koy jëlaat da ngay fay doon jàpp nañ ne loolu ak càcc la daa war a dakk ba orange money ku fa dugal sa xaalis danga ko fa denc heure bu la neex kenn kenn du la sàkkal ab diir ba noppi boo koy récupérer doo ca fay dara boo ca dee jël nag di jënd wala ngay envoyé keneen booba moom yaa ngay def service boo xam mën nañ la koo mën nañ la caa teg ay frais yoo xam war nga koo fay beneen bi nag mooy ñu ni dafa am numéro yoo xam ne sénégalais yi des fois dañ koy soxla pour laaj ay information ay renseignement wala nekk ci jafe-jafe woote ci lu ci mel ni numéro yu mel ni ay 12 12 18 18 yooyu numéro sénégalais yi sentiruñ ni boo yorul crédit munoo cee woote kooku nag dañoo bëgg ñu rendre ko gratuit comme ni mu amee ci réew yëpp ba nga xam ne boo nekkoon ci jafe-jafe war leen woo dangay jël sa téléphone nag woo leen même boo amul crédit kookoot bëgg nañ orange taxaw ci ak euh, nguurug Sénégal beneen bi nag mooy ngay xam ne mooy juróom-ñetteel bi mooy ñu fexe ba qualité service am lan mooy qualité service mooy ku ci nekk li nga jënd boo ko jëndee pare doo woote ñu naan la réseau amul wala doo woote ñu naan la euh, ki ngay ki ngay ki ngay ki ngay waxal mi ngi jokkoo keneen te boo ko woowee mën la jokkoo mën na keneen. nga bëgg a jël sa xaalis ba ko war koo jot te doo ko mën a jot. maanaam jafe-jafe yi am daal ci euh, li nga xam ni moom mooy euh, service bi ñuy jox abona yi. ak sénégalais yi de manière générale loolu lañ bëgg ñu améliorer ko ba qualité bi mel comme ni mu am ci réew yu am doole yeneen exercer parce que bénéfice bi ñuy def Sénégal defuñu ko ci benn réew. léegi beneen bi mooy dañoo bëgg ñun ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi di consommateurs yi ñu tuddee ñu abonné orange ñu fekkee fa ñuy dogale moom la ñuy wax conseil d'administration bi. parce que ñoom rek ñoo fa nekk ñoom tubaab yi ak quelques sénégalais yu ànd ak ñoom ak 23 pour cent yooyu actionnaires yi may wax ni war na war nañ ñoo wax ñeent ñoo fa nekk. ñoom rek ñoo fay toog di dogal ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di gañeloo 3 milliards 200 millions muy ñetti milliards yu teg ñeent fukki millions bés bu nekk orange dina ko gañe ñoo ñii nga xam ñoom ñooy jël seen i téeméer ak seen i nit ak seen i junni di ko def ci seen euh, réseau ñooñu du ñu fekkee fa ñuy dogale dañoo bëgg nag désormais ñuy fekkee fa ñuy dogale parce que réew yëpp même France looloo fa am consommateur dañoo bokk ci conseil d'administration bi loolu lañ bëgg Sénégal it am fi ñu ñu jox consommateur yi seen gëdd Euh, beneen bi nag mooy mooy juróom-ñeenteel bi mooy dañoo bëgg kuy téléphoné luy génn ak luy dugg ñu yombalal la ko ba nga mën caa jot ndax tey diaspora bi muy muy moodu moodu yi nekk ci biti am nañ jafe-jafe pour woote Sénégal parce que dafa cher te ñoom nee nañ seen moroomu moodu moodu ya nekk Europe bu ñuy woote yeneen réew ñoom nekkuñ ci jafe yooyu Sénégal ni mu seere dafa jéggi day kon nag dañoo bëgg ñoom di jokkoo seen i mbokk fii ci réew mi kon nag war nañoo wàññi téléphone bañ mën a jokkalante ci anam yu jaadu yoo xam si tegu na ci dëgg liit bokk na ci suñuy càkkutéef léegi nag bi nga xam ne moom moo mujj mooy orange dafa am ay liggéeykat yu fa nekk yoo xam ni ñu ngi leen def ay contractuel ay contractuel yoo xam ni ay post permanent la ñu yore poste yoo xam ni yu am importance la ci biir kuréelu liggéeyukaay bi ba noppi nangu leen embauché dugal leen ci entreprise bi di leen exploité léegi nag loolu lañu wax ni na dakk xale yooyu dañ leen war a jël ba noppi sax yokk possibilité bi ñuy jël parce que encore une fois entreprise bi dañ cee war a gis suñu bopp ñun sénégalais yi kon nag ci gàttal pour daaneel mooy ñun raw li nu tax a jóg mooy lii orange bëgg noot suñu askan jaay ñu doole jël entreprise bi ëpp doole bi koy gën a andil xaalis nga xam li mu koy andil fii Sénégal sax andil lu ko France moom France Télécom mi nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy société mère bi loolu lañ wax ne na dakk parce que lawal buumug jaam lañ bëgg te lawal buumug jaam duñ ko nangu ñoom mën nañoo not suñuy njiit yi nga xam si ñoom ñooy suñuy kilifa aada yi nga xam ñoo yore réew mi mën nañoo lawal buumug jaam ci seen bopp waaye ñun askan wi duñ nangu kenn di lawal buumug jaam ci suñu bopp dañuy taxaw fépp jàkkaarloo ak ñoom jàmmaarloo ak ñoom woon orange ni réew mi moomu ko te seen tappale yooyu ñu nekkee ñoo ak ARTP ñu dagg ñu bàyyi ko parce que ARTP ñoom ak Orange ñoo déggoo ci lii ñuy def kon nag ñun askan wi ñoom ñun la ñuy organiser ñëw nañ dem dem doore nañ ko ca Ndakaaru ñëw nañ fii tey Touba bu subaa nañ dem ñu ngi ñu ngi waaj a dem Ziguinchor buñ pare daañ dem Ndar daañ dem fépp dajale sénégalais yi préparé wu nag pour jàmmaarloo ak Orange pour que mu delloo prix yi euh, ci yu gën a ba baax parce que même prix yam nekkoon ñun d'accord tuñ ci ñoom ñi ngi romandaat ni dañu ko bëgg a delloo ginnaaw delloo Illimix yi fa mu nekkoon ñun d'accorduñ ci loolu ñun waa raw prix ya fam nekkoon day wàcc parce que prix yooyu dafa jéggi woon day waxantuma rek lii nu yokk lii nu yokk moom day jóg ñun amuñ ci werante day jóg journée bi yëpp da ngay mën a connecté bu dee téléphone tamit kenn du la sàkkal ay waxtu yooyu woote boo xas jënd xasee jënd bis woote bis boo xasee jënd euh, ayu bis woote ayu bis soo xasee jënd weer woote weer lii mooy position raw ñu ngi leen di sant leen gërëm